أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته samedi bi passé jëloon nañ ñaari aaya yi nekk ci suratul baqara 283 ak 284 moom la ñu waxoon waaye yàlla def ci diggante bi ñu jëloon benn aaya bi waxtu wi jot ñu ne woon tey ci kattanu borom bi subhanahu wa taala dinañ mottali aaya 284 bi muy aaya boo xam ne borom bi subhanahu wa taala mu ngi ci wone màggaayam ak kattanam ak dooleem ak moomeelam ak sañ sañ samak sañ samak ak mën-mën sañ-sañam ak mën-mënam moom yàlla subhanahu wa taala li tax mooy tey kenn ci ñun bu nu romboon ay cité cité yoo xam ne yépp ay quarante étages la wala cinquante nga yërndu sa bopp ñu ne nga ni ku moom lii ñu ne la diw moo ko moom diw moomu day tuuti ci yow wala day rëy ci yow kan moomay tontu ne yëkkati loxoom.
day rëy ci yow.
day rëy ci yow lu tax muy rëy ci yow. ndax du sax benn immeuble rek bu 40 étages waaye ay cité la yoo xam ne yëpp 40 étages la. nga ne chien të të të waaye kii moo am doole mais kii mooy ponkal mais yéen kii du nit. nga rombaat nga gisaal lu mel noonu nga ni waaw yii nag ñu ne la ba tey moo ko moom nga rombaat nga ni waaw bii nag ñu ne la moo ko moom nga rombaat ñu ne la moo ko moom bu yàggee lay wax kuy tontu way waaw léegi nag pourtant yàlla loolu la wax de dane lillaahi moom sax waxul fil ard rek dane maa fi samawaati lillaahi ñeel na yàlla lillaahi yàlla moo moomu ñu ne lu moom mu ne maa fi samawaati lépp lu nekk ci kaw asamaan léegi nag nañ leen xool lu nekk kaw asamaan fii nu toog nii ku nekk mën ngaa wax benn mbir bu nekk asamaan te soo waxee mbir mi dootoo waxaal loolu sa moroom wax leneen surtout yéen ñi jàng su ngeen gisee yàlla naan innama yaxsha allah min ibadihi ulama ñi ragal yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg mooy borom xam-xam yi parce que borom xam-xam yi ñoo xam li yàlla def mais ku xamul mënul ragal yàlla ab jaahil mënul ragal yàlla loolu moo tax Sénégal mel nii bu leen yaakaar ne sénégalais yi seen ñàkk a ragal yàlla tayeef la non teyuñu ko parce que xamuñu mbokk yi xale ak baayam kan moo ñeme gaynde lu tax xale bi ñeme gaynde gi benn waay doomam daa dem ci àll bi fekk gaynde tëdd rek mu war ko duur ko ubbum takk ci gémmiñ gi ngalaab ko jëme ko kër ga ali waay kay kii moom réew di ko dóor yaay jigéen seen ko muy ñëw mu xool xool xool wóoluwul mu daw ba ko papa ji ñu daw yéeg ci kaw ñoom ba pare toog ba xale bi yéeg si naan papa mu ne ko xamoo li nga yéeg waaw la moo tax xale bi ñëw war gaynde gi papa ji daw lu tax parce que kii xamul xam nga gaynde gi lu mu def dafa gëstu xale bi ne ko xamoo ma gis nga ñaar ñee ci kaw ñoo ma xam yow da nga maa xamul boo ma xamoon ñun tamit wallahi c'est normal Sénégal ñuy tooñ yàlla parce que xamuñu ko xamuñu yàlla ci aaya bi ñuy war a jël tey borom bi daf ciy wane kàttanam wallahi sunu borom kàttanam foo ko natt wees na ko moomeelam foo ko natt wees na ko yàlla mu ne lillaahi ñeel na yàlla jàngoon nañ aaya bi n'est-ce pas loolu moo tax dellusiwaatuñ ci lillaahi yàlla moo moom maa lépp loo xam ne fi samawaati mi ngi ci kaw asamaan yi mi ngi ci biir asamaan maa fi samawaati lépp lan moo nekk asamaan jant bi fan la nekk est-ce que gis ngeen ci kaw suuf ku defar lu toll ne jant yaakaar naa ñiy defar luy leeral seen seen seen capacité xam-xam eggagul ci xam ceggagul ci defar jant est-ce que gis ngeen ci àddina ku defar biddéew est-ce que gis ngeen ci kaw suuf ku defar niir ku defar asamaan ñaata étoile moo nekk ci kaw ñaata monde ñoo nekk ci kaw te yépp ñu ëpp suuf ñu ëpp suuf waxuñu sax problème mu malaaka yi ba pare parce que ñu bëri da nga yaakaar na bu ñu ne maa fi sama dara ñu ne malaaka waaye ci mbindeef yi dund ci kaw asamaan kenn xamul nu mu toll àjjana ju ñu yàlla dig mu ngi kaw asamaan lépp lu ñu yàlla dencal ci xéewal mu ngi kaw asamaan xataa suñu wërsëg bi ñuy dundee wax naa leen ko vendredi démb ci xutba juma yàlla nee na wa fi samaai rizqukum wa ma tuadun li ma leen dencal dig leen ko ak seen li seen dund li tax dëkk bi mënuñoo am dund bu baax robinet yi wàcce dund bi moom la yàlla tëj magasin yi moom la yàlla tëj caabi yi ñaar la mooy al iman wa taqwa bu ko nit ñi amee yàlla ubbi magasin yi dund bi wàcc comme nit ñi dañ ko manqué yàlla daal koy tëj walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakaati min assamal yàlla nee na nit ñi bu ñu gëmoon yàlla am iman rek ma tijj la wax dafa ne da ne damay tijji kon lu ñuy tijji suñ ko tijjiwul luñ ko def dañ ko tëj instant bi Sénégal dañ ko tëj bu yeboo ñu changé xam ne danañ changé waat beneen gouvernement juróomi at dana jeex ngeen folliwaat Macky Sall falaat keneen yàlla ba léegi mu tëj ko rek ngeen folli kooku falaat keneen yàlla tëj ko rek xam ngeen la mooy tax yàlla tëji ko al iman wa taqwa inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin su nit ñi amee iman am taqwa yàlla nee na ma ubbi ko ak ku leen mën a jiite nag wa in taamara alaykum abdun habashi même du dee jaam bu ñuul kukk bu dëkk Éthiopie moo leen jiite yàlla nee na bu fekkee ci ngëm la leen jiite ak ragal yàlla mu ubbi xéewali mu ñëw bu fekkente ne du loolu bu yeboo ngeen jël ki raw ci réew mi ëpp fi ak ay doctorat mu jiite leen xam nga fan ngeen di mujje mooy tamante dëmm rek comme ay milliards yi ñuy ji ñeent foofu rek la ñuy mujj kon bu nax suñu bopp yàlla kàttanam wees na ci dundal waa Sénégal kese parce que moom mooy dundal adduna bi wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha ku xool ndox mi nekk Sénégal xool suuf si nekk Sénégal est-ce que Sénégal lépp lañ dëkk li nu dëkk ak li nu dëkkul lu ëpp li nu dëkkul ndox mi ndox mi wër Sénégal mën na dundal suuf si wala mënu ko waaw lu tax kon mënuñoo dund nun ba doyal pourquoi Chine duñ jox ceeb lu tax ñu ñu ne ñu ne ñu dem leen ngeen lekk dugubu dugubu fas bi xaw ma ceebu fas bi lu tax parce que yàlla suuf saa ngi nii ndox maa ngi nii yàlla sunu xel yi ak sunu xam-xam yi la tëj duñ ko jëriñoo mukk jamais parce que jaaruñ ci yoon bi wallahi bu ñu soobu woon yoonu yàlla léegi yàlla tàggat jaam ñi gis ngeen ñii nii yàlla tàggatee jaam ñi ba ñu toppee seytaane seytaane jël leen di leen mobiliser yeew ay buum seen baat bënn seen bakkan yi ngoon gu nekk mu daw jëm nii ba egg ci géej gi ñoom ñëpp mu entraîné leen ba ñu ne gij ba ñu xam ngeen entraînement ak bay lu gën a métti entraînement ak bay lu gën a métti xam ngeen ne entraînement moo gën a métti xoolal di yëkkati gis naa benn waaye fan yi bu doon yëkkati xaw ma 200 kilos xaw ma na 400 kilos naan ni teg yëkkati teg ma xool xool ba ci àgg teg ma ni cey ndeysaan aka neexoon 400 kilos yooyu ah ñu def ko fii fii sabilillah ñaata écrit mbër mu am Sénégal ndax yéen a ngi topp arsif yi ñaata écrit mbër mu am Sénégal xamu leen ok ñaata équipe nawetaan mu am Sénégal xamu leen ko waa léegi dañ jël ñaar yooyu rek bu ñu jëloon mbër yi ak zóoru nawetaan yi yóbbu leen ci tool yi ci àll bi ak ay caterpillar ak ay machine mbay Sénégal day jaay ceeb ak dugub ak mboq d'accord ngeen wala d'accordu leen ah waaw léegi doole jooju ñuy def ci mbedd ci àll bi stade bi doole ji ñu fiy def nawetaan bi ba mu jeex loolu ban njëriñ la ñu amal ñi entraîné fi mu nekk ñëpp ban njëriñ la ñu amal gis ngeen xam ngeen lu tax yàlla yóbbu leen foofu parce que iman amul taqwa amul doo fa gis ko am iman ak taqwa wallahi stade amitié ñaata personne lay jël mani doo fa gis ko am iman ak taqwa jamais koo fa gis rek amul ngëm ngëm fanaanul ci dënnam ragal yàlla fanaanul ci dënnam waaw mooy sunu problème yàlla wax nanu moom moo moom asamaan lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard yàlla nee na lépp lu nekk asamaan maa ko moom li ngeen di gis jant biddéew weer asamaan ak li ngeen gisul lépp malaaka yi arsh kursi yàlla moo ko moom yaakaar naa nag li ñuy kannasu kannasu déggagu leen ko ne maa moom asamaan si wala maa moom suuf si foofu moom kenn du ko wax maa moom asamaan maa moom jant bi maa moom weer bi maa moom biddiw yi ah maa moom malaaka yi loolu moom moom moom eggagun foofu lu ne moom mun a dégg nit woote wu ko ci Sénégal nag ba mu des loolu yàlla daf ñuy woon bis bu nekk kàttanam mais ñun dañuy romb rek li tax mënuñoo jëriñoo alxuraan parce que dañuy yem ci xarf yi yàlla bu la nee maa moom asamaan du du kum oto boo romb rek ñu ne la waa diw moo moom oto bi naka ngay gisee benn cité bu benn waay moom benn waay moom moom cité bi yépp kër yépp cinquante étages la waa ji yéem la nga rombaat gis beneen waa ji yéem la nga rombaat gis beneen ñu ne lépp kii moo ko moom fi mu nekk nii waxuma sax loolu mais benn oto rek oto limousine oto boobu am six portes su ñëwoon fi ñu ne ku moom li rek ñu ne diw rek allahu akbar mais diw texe na oto rek nga gis diw texe parce que waa ji moom moom moom loolu yàlla wax lu ëpp loolu kenn yéemuwul dañu gis oto rek yéemu kon que yàlla bu la nee maa moom asamaan nga xool asamaan ni mu toll yàlla posé la ci question nee la a antum ashaddu xalqan ami sama yéen yéen a ëpp doole wala asamaan moo leen ëpp doole yàlla ne la wa fi samaai risqukum wa ma tuadun asamaan laa la dencal li ngay dunde chaque jour yàlla di la wax ay kéemtaan ci asamaan kon kay di du hasard rek nga xool asamaan rek daal di dem sa yoon kon war nga xam ne kile ne maa ko moom chaque jour nga koy xool sa bët du ko daj du xam fu mu yem du xam fu mu tàmbalee asamaan si fu mu yem aca bismillah xam nga fu mu tàmbalee ban dëkk ngay dem te asamaan tiimu leen kan moo mun a naaw ba génn asamaan bi yàlla nee na li ma def ku mu neexul samay dogal ku ci d'accordul sama asamaan bu mu la tiim bul dox sama kaw suuf demal feneen nga jaamu beneen borom bu dul man aca bismillah mën ngaa mere sa papa nga ne ko reeruma ci dëxin bi reeruma mu ne reeroo nga ne waaw mu ne waaw bismillah nga génn waaw wala mën ngaa mer nga ne ko ndékkiwuma wala mën ngaa mer nga ne ko fanaanuma ci kër gi wala nga ne ko damay génn dëkk bi mereel yàlla nga ne ko du ma dox ci suuf si asamaan du ma tiim kon du hasard rek doomu ndey yàlla naan ñu maa moom asamaan yàlla wees na foofu tey boo jàngee boroom xam-xam yi yor mbirum jàngale mbirum asamaan yi fa nekk sa yaram day daw da ngay gëlëm ci yàlla ni mu ko organisé ay étoiles yuy daw vitesse yoo xam ne bu ci ñaar laalante àdduna bi day tukki te benn du laal moroomam te amul nit ku ko nekk di ko orienté te bu nekk wa kullun fii falakin yasbahun bu nekk mu ngi ci espace vitesse di daw limite yoo xam ne subhanallah ah normal mi ngi mel ne tey ay oto yu daw ci tali te amul ay chauffeur te pourtant loolu bu ñu gisoon loolu léegi rek nga gis ñëpp tiit allah tubaab yi du ñu nit xoolal lii rek nga dawal te ay ay bouton ay tubaab waaye yàlla nag allahu akbar waaye lu tax sunu sunu sunu capacité xam-xam ak ngëm gu néew moo tax duñu xam kan mooy yàlla waaye yàlla ne bu ne ne maa moom asamaan yemu ci loolu mu ne la wa ma fil ard man maa moom lépp lu nekk ci kaw suuf su la yàlla waxee loolu bëggu laa wax rek te loolu lan la la ci bëgg a wax xalqan wa milkan milkan wa xalqan du du min du mbindee fi fay dund rek la moom de du mbindee fi kese déedéet su yàlla ne suuf li fi nekk maa ko moom du nit ñi kese yemu ci la mu ne inna nahnu narisul arda wa man alayha maay donn suuf ak ñi ci nekk da ngay gis benn waaye bu ñëw terrain bi maa ko moom ñu ne moomoo mu génne titre foncier gars yi ne awa moo ko moom de lii kii de depuis 1901 la woon mu rajaxe li fa nekk indi caterpillar tibb xeeri sànni ñëw dóor fa benn immeuble mu dee ñu jaay ko keneen kooku ñëw ne waaye immeuble bi yëfu dof yi li xewi na di di leen ko ñu dégager ko ñu samp leneen kooku ñëw dindi ko ñu ñëw samp leneen kooku ñëw dindi ko ba kañ ci yàlla lay mujj yàlla nee na ñi ko doon yëpp ñi ko doon ndox ñoo ko moom yëpp moomuñu ko maay borom maa koy jël te kenn dootu ci tabax yemul ci doon suuf rek waaye waman alayha ak ñi ci nekk sunu borom chaque jour ci wàllu xel daf ñuy tourner afala yanzuruna ila al ibili lu tegu ci aaya boobu wa ila samaai kayfa rufiat xool leen asamaan ni ma ko yëkkatee gis ngeen asamaan lillahi ma fi samawaat yàlla neen xool leen asamaan ni ma ko yëkkatee fii ñu toog lii ñu tiim dafa am lu ko téye pour mu tiim ñu wala ah wala ok ndeysaan asamaan nag lan moo ko téye bu mu tiim réponse bi laay xaar pour ñu continuer ah lu tax te lépp lu la tiim il faut am lu ko téye ba mu mën laa tiim asamaan ñaata at la nu tiim ñaata at la kenn téyewu ko de déggoo bi nag nag li gaa yi nag ñeme ñeme nag déggu ne waa asamaan si de ma ma ma cheikh diw de moo ko téye ah déet kon léegi taalib bi na ah la wax ba moom kenn eggagu fa asamaan moom allahu akbar yàlla moo ko téye allahu akbar yàlla nee na maa ko téye ba daanuwul ci kaw suuf Moussa dafa mos wax yàlla yàlla lu tax doo nelaw yàlla mu ne ko Moussa laaj nga question bu rëy de ah bëgg naa koo xam de jàngeen yàlla mu ne laa taaxuzuhu sinatun man du ma gëmmentu xuma la nelaw yàlla mu ne Moussa lu tax doo gëmmentu yàlla daal di bàyyi Moussa ba ma may fan mu jox ko nen ne ko téyel ma ko dinaa la ko laaj nag te bu ma la ko laajee nag ma ko delloo Moussa téye neen bi suba ngoon guddi bay booru fajar mu gëmmentu mu daal di daanu toj yàlla bàyyi ba bëccëg mu ne Moussa ana neen bi mu ne ah man kay dama sonn dama toog rek téye ko nii ne ko gëmmentu naa mu wadd yàlla mu ne ko Moussa bu ma gëmmentoon asamaan fekk si leen bu ma gëmmantu woon rek asamaan fekk si leen bu bu ñu asamaan fekk si woon luy xew bu ñu géej gi fekk si woon luy xew su suuf si wëlbateeku woon luy xew moo tax yàlla du nelaw du gëmmant afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat wa ila samaai kayfa rufiat xool leen asamaan ni ma ko yëkkatee lan la ci teg wa ilal ardi kayfa sutixat xool leen suuf ni ma ko sampee ba du buuse yàlla jël ay montagne samp ci suuf si gis ngeen bu ngeen jëlee pont nga dajale ñaari bant di leen daaj bés bu nekk boo buggee mu dëgër pont bi ngay daaj ci ñaari bant yi guddaay bi day bëgg day ëpp hauteur ñaari bant yi bis boo jëlee ñaari bant yu dijj nga leen di daaj nga jël pont bu ndaw boo xamante ne du génn ci beneen bi ci suuf amoo li ngay daaj baaxul ku ko xëcc mu dañ waaye bis boo dóoree pont bi ba mu génn bant bu njëkk bi dugg ci bant ñaareel bi génn lu toll nii aminise yi li ngay daaj dëgër na rawat mooy montagne yi montagne yi yàlla da ko si ñu bëri dañuy gis nii montagne ñu yaakaar ne montagne bi dafa tegu nii ci kaw déedéet dafa samp ba génn ci suuf ay pieds la yu yàlla sampe suuf si ba suuf si du bouger aaya alxuraan la ban aaya la sama kado yi gëj naa ñëw de xool leen montagne yi ni ma ko sampee yàlla dafa samp montagne yi ci suuf si pour suuf si taxaw ne kaj ah kon kay yàlla du morom kon sunu borom bi di wax aaya yu mel nii waru ñoo ñëw rek daal di romb fëlëx fëlee ko daal dem suñu yoon comme ni ko gaa yi defee lillaahi ñeel na yàlla maa fi samawaat li ci asamaani maa fi laardi ak li ci suuf loolu yomb na du loolu moo tax alxuraan jóg yàlla chaque jour bu ñuy wax dara dafa bëgg ñu toog xool loolu lan la parce que ci suñu xool loolu la ñuy xam moom yàlla mooy kan lu tax duñ ko ragal lu tax ñu ñeme ko mooy xooluñu loolu mu wax moom mu def yox naa leen léegi léegi yéen bi ngeen gisee fi benn waaye bu am nangam rek ñépp dañoo waaru fonk waa ji tey dama yendu park an laa yendu ni maa ngi doog a ñëw dama doon bañ a daw tafsir dañuy toog ba caag benn waaye ñëw di jaay benn feuille bu ñu def histoire am ñu ne moom moo duggoon ci kaafu gaynde gi bi gaynde gi rëccee mu ñëw di jaay feuille yi mu ne man la nit ñi dañ koy wax rek mii man mii la gis nga nii la demee woon feuille yi dama koy jaay ñëpp di ko xool waaw lu mu def bi mu yéem nit ñi tey ñun lépp lu nu yéem fii xam nga sénégalais yi dañoo bëgg ndeysaan moo tax gis nga seen ñun lu nu nax mooy lu ndaw rek ñëpp yéemu moo tax yenn saa di nga dégg am na ku génn ci benn miir fële am na ku génn fële ci benn kii soo xoolee weer wi diw nga ciy gis mu ngi nii xoolal xool bu baax karamam ngay gis moom la moom la yu ndaw yooyu caaxaan yooyu parce que xamul tax parce que yii la moo réyul ci ñun saxaaba yi ba leen yàlla di wax alxuraan ñu xam yonent bi di leen ko leeral ñu dégg kenn ngandatul ci ñoom parce que gis nañ lu ngande ba pare ah ku fi gis ku dem ba ci ku ngande toog ak moom fanaan ak moom wax ak moom benn dafa am benn histoire bu amoon ci benn benn koñ benn paa di tiital benn waay mu ne ko yow wër na borom asamaan naa la booleeg ministre diw sama xarit la ndaw si bëgg a won paa bi bi kooku nga ma bëgg kooku nga ma bëgg a booleel du dara mu ne ko man chef am këyit bu muy signé man maa koy yóbbu mu signé ko mu ne kan mu ne président de la république kan xanaa xamul présidence laa nekk maa yóbbu président bis bu nekk suba bu nekk mu signé këyit yi ma doog koo yóbbu bureau secrétaire général bi léegi kooku ndax dina boole ji dootul boole ji day yem day yem gis nga yonent bi bi mu wonee saxaaba yi yàlla ñu xam màggaayam xam kàttanam moo tax da doon bind lettre kese nekkoon ana ak ku fi ana diw mu ne maa ngi nii mu ne ko am demal buuru sàngam nga jox ko lettre yi kenn du la gunge nga gàddu lettre bi yow kese yenn saa nga gis ki ñu yónni war mbaam mu ñëw fekk ñoo xam ne ay ñay la ñuy war ñay liñ yor ci arme kenn xamul nu mu toll waa ji yor mbaam ñëw ne la dañ maa yónni de lettre laa indi buur bi laay xool ñu ne ko non non da ngay ñuy jox lettre bi ñu yóbbul ko ko mu ne déedéet ki ma yónni dana woon miamee sama loxoog loxoom xalal loolu allahu akbar yenn saa yi ñu bëgg a tiital waa ji ne ko waa léegi da ngay dem nga noppalu ci pour ñu préparer pour buur bi tegal ko ay chaise ay garde lal ay tapis rouge pour tiital waa ji pour buy ñëw mu mu mu delloo mu ne ñi ma fekk foofu day mënuñu xeex ak ñoom waaye waa ji buy ñëw bu ñu defee seen loolu ba pare waaye waa ji buy ñëw mbaamam moomu lay waraat bu ko yégal ci tapi bi buur bi jaar ñu ne ko eh mu ne leen déedéet da ngeen may bàyyi dañ maa yónni lool loolu lii lañ ma wax cokos cokosi mbaam mi ba ci wetu buur bi mu ne ko am yonent yàlla bi moo ma yónni waa ji ubbi lu muy gis min muhammadin rasulillah ila kisra aw ila qaysar lan moo ci nekk aslim taslim tuubal mucc tuubal rek nekk ci jàmm yenn saa yi waa ji ne waaw yow ki la yónni bu ñu bañee tuub nag nga gis waa ji rocci jaasi ji ni ko kii mooy nekk sunu digganteeg yéen xam nga ni kon kii réyatul ci kanamam lu waral loolu mooy yàlla yonent bi dafa wonoon gaa yi yàlla ci ay alxuraan yi ba ñu xam yàlla ni mu tolloog yàlla li mën amul ku ko mën ci àdduna te kenn du ko mën ndax yàlla moo moom asamaan moom suuf lillahi ma fi samawaati wa ma fi l ard yàlla moom moom lépp mu ne wa in tubdu bu ngeen feeñalee maa fi anfusikum li ngeen denc ci seen biir maa fi anfusikum li ngeen denc ci seen xel yi li ngeen denc ci seen xalaat li ngeen denc ci seen xol yi doomu aadama am na lu mu denc sa xel mi am na loo ci xalaat sa xol bi am na loo ci xalaat loo ci comprendre pour def ko fi mu nekk nii ñun ñu ñu ngi toog fii ku nekk sax guddi gi nii yaa ngi préparé bu ñu tafsiré ba bu ñu jullee pare gee fu ma jëm lan laay defi nangam nangam yaa ngi denc ay projet yàlla nag loolu lay wax mu ne wa in tubdu bu ngeen feeñalee maa fi anfusikum li ngeen denc ci seen biir aw feeñalee ko aw tuxfuhu wala ngeen nëbbu ko yuxaasabukum bihi llaahu yàlla dina leen ci àtte boo ko feeñalee boo ko nëbbee yàlla dala ci àtte jàngeen histoire bi waa ji nga xam ne dafa amoon yaayam guddi ak bëccëg yaay ji di lekk yàpp guddi ak bëccëg yaay ji yàpp lay lekk waaye mu faatu yàlla ne malaaka yi jël leen waa ji ngeen yóbbu ko safara malaaka yi sujjóot ci kanam yàlla ne ko waa ji dosiyem yi ñu doon bind ay tiyaaba ak bàkkaar yàlla ne leen waaw ñu ne ko ñun gisuñu ci bàkkaar ba pare nga bëgg a wax kii nañ ko yóbbu safara ñun nag ñun waaru nañ xanaa du bàkkaar kese moo yóbbu ni safara yàlla mu ne waaw parce que xamul tax man yàlla maa xam kumpa yéen xamu leen kumpa man maay alimul xayib wa shahaada maa xam li nëbbu maa xam li feeñ waaye yéen waa ji lan la def ba mu yéem leen ñu ne ko yàlla kii yow yaa ñu ko gën a xam kii dafa amoon yaayam yaay ji yàpp rek lay lekk ndax dafa bëggoon yaay ji yaay ji mosul lekk leneen lu dul loolu da ko doon liggéey guddeeg bëccëg yàlla mu ne waaw moom bu joxoon yaayam lekk ba pare lan ngeen gis mu def ñu ne day dem indi ndox jox ko mu naan bu paree daal di tëral yaay ji sànq ko mbàjj ñu ne après malaaka yi mu ne mu jël flècham bi wékk ko waat ko dem liggéey yi yàlla mu ne loolu ngeen ci xam ñu ne waaw yàlla ne leen après day wax ci xolam yàlla na sama yaay dee ba ma noppalu allahumma xuzha wa arihni minha yàlla kii na dee ba ma noppalu kii na dee ba ma noppalu est-ce que yéen xamoon ngeen loolu malaaka yi ne yéen koy xamul yow kay yàlla yaay ko yàlla mu ne voilà loolu lañ ko àtte tey deful woon ngir yàlla dafa doon def ngir meer bi dee mu noppalu gis ngeen ngeen yéene moo tax bëri na lu denc nit di denc loolu moo ko yàqal bëri na lu di denc bëri na nit ku def lu rëy mu faatu yàlla mu ne ko defoo dara lu tax parce que yéene bi moo baaxul ay yu mel ni daf ñuy delloowaat ñuy sellal suñu yéene bu nu yàlla di wax ne wa in tubdu ma fi anfusikum bu ngeen feeñalee li ngeen denc aw tuxfuuhu wala ngeen nëbb ko moo xam feeñ na moo xam nëbbu na yépp yàlla xam na ko yuxaasabukum billah jàng ngeen beneen xadis bi ci buxaari yi waa ji moyoon yàlla ba alko musul topp yàlla waaye mu wóor ko ne day dee mu ragal mu tiit nag xam na ne day dee mu ragal nag léegi nag dajak yàlla mu woo doom ji ne leen ban bàyyi laa ci yéen ñu ne ko bàyyi ju baax bàyyi ju bëri yéen man de bàyyi ju mos a toppatoo ay njabootam mu ne ndax mos ngeen xiif ñu ne déedéet mos ngeen mar déedéet mus ngeen am problème te réglé wu ma ko ñu ne déedéet mu ne kon dama leen bëgg a sant liggéey ma deewee na ngeen ko def damay waaj a dee ma dee na ngeen def li ñu ne ko papa loo bëgg ne bu ma dee na ngeen dajale ay matt ba mu bëri ngeen daal matt yi dugal ma ci lakk ma ñu ne ko lakk ne waaw lu tax damaa dara damaa ragal dajeeg yàlla yàlla laa ragal bugguma dajeeg moom parce que topp ma ko woon moom ni ngeen ma lakk ba ma nekk doomu taal ngeen xaaj ko ñaar ñaari paan ngeen jël benn paan bi def ko ci géej gi yëngal ko mu say beneen bi ngeen dem ba ci benn montagne bu gën a kawe ngeen sànni ko mu mu naaw duma dajeek yàlla ci naa duma dajeek yàlla ndax dama ko ragal bugguma ñemewu ma ko lu dee doom ji def loolu lakk ko def ko ñaari paan benn di genn wàll gi ñu dugal ko ci géej gi benn genn wàll gi ñu sànni ko ci ngelaw li yàlla mu ne ko kun faya kun mu taxawaat kanamu yàlla yàlla mu ne ko waaye li nga def lu tax nga def donc dama laa ragal ñemewuma la ndax musuma laa toog xam naa ma dajeeg yow du baax ragal dajeeg yow rek moo tax ma dugal ma def ni yàlla mu ne ko baal naa la comme ragal nga dajeeg man rek xam nga ma ba ragal ma baal naa la ñun nag xamuñu yàlla loolu mooy sunu problème suñu mbir yi yàlla def ñu ci àtti lu nu nëbbëg lu ñu denc yàlla def ñu ci àtti borom bi nee na yaxfiru mu mooy jéggal fa yaxfiru mu jéggal li man yashaaw ko ko neex wa yuazibu mu mbugal man yashaaw ko neex fii aaya yu mel ni léeg-léeg ñi amul firi firi yu leer wala ñu bëgg a fowe seen bak bopp ñu bëgg a alku dañ koy jël di ko firee nu mu leen neex comme yàlla day mbugal ko ko neex di baal ko ko neex man kay kon lu ma neex ma def fa yajibu man yasha fa yaxfiru li man yasha yàlla day baal ko ko neex wa yuazibu man yasha mu mbugal ko ko neex allahu akbar yuxaasibu bihi yàlla di ko àtte yaxfiru li man yasha min ahli liman yàlla mooy jéggal ku ko neex ci ñoñu ngëm ku gëm yàlla wa taqwa ragal ko kon yàlla ñi muy jéggal mooy ñi am imaan am taqwa am ay manqué manqué yu ñu def yàlla jéggal leen wa yuazibu man yasha min ahli shirk wal maas yàlla mbugal ñi ko soob te mooy borom bokkaalakat yi ak ñi doon mooy yàlla hal yastawi allazina yaalamuun allazina la yaalamuun jàngeen alquran yàlla mu ne afa naj'alu almuslimina kal mujrimin ndax da ngeen a bëgg ma jël jullit yi def leen comme ay bandi xam nga lu lu yàlla teg ci ay wow maalakum kayfa tahkumun yéen a bon jugement yéen seen atte bu bon ngeen yor da ngeen bëgg ñu jël jullit def ko comme yéefér ñoom ñaar yemuñ wala yastawi alxasanatu wala sayyi'a lu baax ak lu bon yemul kon du maandu te mukk nit di topp yàlla guddeeg bëccëg sellal def lépp mu dee yàlla mu ne ko yow daal dama la bëgg daw safara laa la jëmee yàlla dafa maandu ku nekk li nga def wa an laysa lil insaani illa ma saa kenn ku nekk li nga def rek loola la yàlla di fay wala fi nee nañ li nga bay li nga ji moom ngay góob li nga ji rek moom ngay góob ñu ngi ni toog wallahi ku fi bay kaani luy sax luy sax suukar wala kaani mooy sax ku def lu baax yàlla fay la lu baax ku def lu bon tamit yàlla loola lay fay ixwaan yi sunu borom nee na subhanahu wa taala fa yaxfiru moom yàlla day jéggal li man yashaaw ku ko neex ci ñooñu ngëm yi ak ragal yàlla wa yuazibu mu mbugal ci bokkaalekat yi ak defkatu bakkaar yi man yashaa ku ko neex wallahu yàlla qadirun ku mën la ala kulli shayin ci lépp lu mu mën a doon wallahu ala kulli shayin qadir yàlla lépp la mën yàlla lépp la mën boroom xam-xam bu tudd sayid xawa rahimahullah dafay wax ne bu ngeen jàngee alxuraan ba yegg ci aaya yu mel nii da ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee yàlla lan la wax aaya bi bu muy jeex lu mu wax yàlla lépp la mën ndax fii ñun ku nekk ñun ñi ku nekk mën nga lépp ku mën lépp yëkkati sa loxo waaw lu tax mënuñu lépp kenn mënul lépp même boo nekkoon milliardaire mënoo lépp boo nekkoon multi milliardaire mënoo lépp milliardaire bi sax a dundam ñu bëree ci jàpp wala dundam pour mu neex ñu bëri ñoo ci jàpp téere yi jàpp nañ ci menuisier yi jàpp ci bismillah docteur yi jàpp ci mbindaan yi jàpp ci maçon yi jàpp ci bismillah mécanicien yi jàpp ci lim leen ñu ñëw ñëpp a ci jàpp pour pour pour pour nga normal pour nga nekk ñëpp a ci jàpp téer bi ku ko ñëw yére bi ko ñëw kër gi ku ko tabax bunt yi ñu ko monte peinture bi ku ko peintre oto bi ah dàll yi cordonnier yi sax jàpp nañ ci pour milliardaire bi mën a génn cordonnier yi sax jàpp nañ ci pour yonent bi mën a génn ñëpp a ci jàpp pour yàlla lay wax ne mënoo lépp man dong maa mën yëpp yàlla nag moom ku ko jàppale balaa ngay dem fenn rek sa juddu rek dañ cee jàpp pour nga juddu ndey ak baay bi juddu jotee sax pour nga génn dañ cee jàpp wala bu ci jàpp ñaata yoon ngay gis ñu yóbbu ñu yóbbu ndaw si hôpital même bu dee ci biir kër gi la nekk dañuy dem woote ji ñoo leen ngeen rawle ko bu njëkk ba looloo amoon dañ ciy jàpp won na le mënoo dara yàlla rek mooy ki mën wallahu ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la mën suñ la yàlla waxee nii rek ne la lépp laa mën kon war nga fi nekk di hésiter leneen yàlla ne la mën naa lépp am nga aajo yàlla ne la mën naa lépp kon aajo boobu foo jëm su sa papa mënoon lépp am alal mën lépp nga am problème foo jëm ah su sa mag amoon alal mën lépp nga am problème nooy def ci koy dem ci moom lu tax waaw yàlla nee na lépp laa mën nga nekk jaamu yàlla yow te doo dem ci yàlla chaque jour nga romb fi yàlla te yàlla ne la yow sama jaam nga nga ni waaw mu ne la man mën laa lépp nga am problème demoo ci moom nettali woon naa leen benn waay bu tëdd guddi gént ñu ne ko demal kër diw nga nga nga jox ko ration mu dund waa ji daal di yeewu jël otoom 4x4 def ci ceeb def ci dëwlin def ci lépp lu ñuy soxla dund daal di koy dawal ba ci kër waajooju mu fëgg waa ji ubbi mu ne ko li ci oto bi yaa ko moom waa ji daal di yee njabootam ñu wàcce lépp bi waa ji bëggay dem bëgg a taal oto bi dem daal di ne i xaaral xaaral ma jox la sama carte visite bu affaire bi jeexee su numéro bi nga may woo rek ma indiwaat mu ne ko soxlawuma numéro téléphone mu ne lu tax kan moo la yee ba nga indi lii man kooku la amal affaire ki la tere nelaw ba guddi gi nga jóg indi lii kooku doy na ma maa ngi numéro téléphone kooku su ma ko waxee yaa allah mu ne ma labbayka ya abdi wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib xool aaya bi ko yàlla waxee fa inni qarib est ce que fa la yem ujibu daawata daai isa daan allahu akbar damay wuyu woote aji woote damay wuyu lan laay wuyu woote aji woote ku ma woo rek man yàlla mu wuyu la lan mooy charte bi est ce que yàlla nga woo Moussa dafa gis benn waaye buy ñaan yàlla ñaan ba poqotaan yi génn mu wàcc loxo yi dara ñëwul Moussa mu ne yàlla waaw kii mayoo ko mu ne ko kii xel mi nekkul ci man de ci mu ngi may ñaan mais xel yaa ngi ci xar yi muy sàmm xel mi mu ngi ci xar yi naan ci xar yi bu leen bukki yi lekkee naa gaaw naa gaaw ñaan bi jeex bala xar yi def ni ñun loolu mooy suñu problème fii nga taxaw ci ràkk bi di julli sàpp bi rek yàlla yaa ngi dem i guddee guddi na de xanaa sama reer bi mu ngi sedd wala dama gaaw tey dama am rendez-vous wala dama war coup téléphone kuñ ma war a woo yaa ngi julli ci kanamu yàlla nga taxaw mais sa fii mu ngi wax dama am rendez-vous dafa am ku ma war a woo dafa am fu ma war a dem saa yi sax nga ni nii xool montre bi tuuti wala loolu mooy suñu problème de yal nañu yàlla defal woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu ñu sori ko kon aaya baa ngi noonu moom moo ci desoon mooy wallahu yàlla ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko mën la moom yàlla subhanahu wa taala moom fi la ñuy yem ba samedi bii di ñëw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh